mbokki Sénégal asalaamaaleykum li ñuy dégmal lu am solo la dañoo war a tànn kii nga xam ne ci juróomi at yi di ñëw moo war a jiite réew mi kooku ñu war a tànn nag tànneef gi ñu koy tànnee warul doon lu yomb wala lu oyof du ñu tànn nit ndax ñoo bokk xeet wala ñoo bokk diine wala ñoo bokk tarixa wala ñoo bokk dëkk waaye dañuy tànn jiital kii ñuy tànn ndax bokk na ci ñi jub ci réew mi dañuy tànn seet ndax kii ñuy tànn xam-xam bi mbir mi laaj ndax yor réew du caaxaan est-ce que mu nga ca moom waaye dañuy tànn seet kii ñuy tànn est-ce que bëgg na réew mi ba mu jaral ko ay sacrifice gis nañ cofeel gi ngeen am ci ñun waaye loolu doyut lii mën a yeggali mbir mi mooy na ngeen génn massivement dem jëli carte yi ndax carte yaa ngi ci lieu de distribution yi lu ci bëri jëlee jiguñ ko génn leen massivement jëli carte yi wan nañ leen taxawaay ci suñu xeex ngir jëlee fi ger ak lépp loo xam ne yorin gu ñaaw la war nañ suñu taxawaay ci xeex gi ñuy xeex ngir suñu alalu réew dellu si si réew mi rawatina lii nga xam ne mooy suñu ressource naturel yéen suñuy papa ñu ngi leen di ñaan ngeen wóoluñu ndax yéen a ñu yar ci jikko yéen a ñu yar ci njàng yéen ñu yar ci xam-xam tey ñu toll fu ñu war a mën a jëlee loolu yépp delloo ko ci réew mi ñu ngi leen di woo pour ngeen wóoluñu ngir ñu defar réew mi. gis nañu at yi weesu fitna judd na ci Sénégal. ba ay wax yu mosul am Sénégal dikkaat fi dañoo bokk ci ñu jàpp ni Sénégal dafa soxla ñu rassembler nit ñi dafa soxla ñu tàppewaat xol yi dafa soxla ñu boolewaat sénégalais yi parce que nu some une nation forte nous une grande nation àdduna bi yëpp nawee ñu lii nga xam ne mooy suñu unité ba tey ku ñëw Sénégal doo xàmme kuy diine gi ak kuy diine gële doo xàmme kuy xeet wi ak kuy xeet wële dañoo soxla rassembler sénégalais yi bëgg nag campagne bi ñu jëm bañ a doon campagne xeex ak xuloo xiiroo ŋaayoo ak xaste na doon campagne programme ak débat d'idée xuloo wuñu xeexuñu waaye débat wu la ku nekk indi sa xalaatin ci secteur politique publique yëpp jot na li ñëpp bokk ñëpp jot si yal yàlla def jàmm yal yàlla yokk jàmm ci Sénégal mbokki Sénégal asalaamaaleykum li ñuy dëgmal lu am solo la dañoo war a tànn kii nga xam ne ci juróomi at yi di ñëw moo war a jiite réew mi kooku ñu war tànn nag tànneef koy tànnee warul doon lu yomb wala lu oyof du ñu tànn nit ndax ñoo bokk xeet wala ñoo bokk diine wala ñoo bokk tarixa wala ñoo bokk dëkk waaye dañuy tànn jiital kii ñuy tànn ndax bokk na ci ñi jub ci réew mi dañuy tànn seet ndax kii ñuy tànn xam-xam bi mbir mi laaj ndax yor réew du caaxaan est-ce que mu nga ca moom waaye dañuy tànn seet kii ñuy tànn est-ce que bëgg na réew mi ba mu jaral ko ay sacrifice gis nañ cofeel gi ngeen am ci ñun waaye loolu doyut lii mën a yeggali mbir mi mooy na ngeen génn massivement dem jëli carte yi ndax carte yaa ngi ci lieu de distribution yi lu ci bëri jëlee jiguñ ko génn leen massivement jëli carte yi wan nañ leen taxawaay ci suñu xeex ngir jëlee fi ger ak lépp loo xam ne yorin gu ñaaw la war nañ leen suñu taxawaay ci xeex gi ñuy xeex